borom jurul borom jàpp ndal borom daari la gën mooy borom jamono góor ga daan jékki-jékki di turi xéwal ñu naan ko mbàkke moo ko waral mu ni mala yi ñuy dóor te defuñu dara yaay loolu mooy métti sama yaram wi yaakaaru sëriñ Béthio Thioune borom njurul borom njàpp ndal ni ca yaa ngi ngeen loxo yi